بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خالق إبليس وجميع المفاسد وبسم الله الرحمن الرحيم لا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل مسائل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم جاوز لا من يدخل الجنة جاوز بالبرهان ربي المهم ملك أسيا وسعساد الرحيم لم يدخلي إلى دخول الجنة خير مساراتها لزل منا لم يدخلي فجر ولا وحيد وهم إلى الجنان حيد أخفى لي السر المسؤول الله حبا وقال لي له بأفواه البريع برأني الخالق من سواه أكرمني الله بالذكر وما لقاره ولقال اللقمان ما هذه الله الكرام خرا وببقائي نبي سرا هبات قوله إن الذي من الإله رسل غاب عن القوم بيبسل الذي ألا على الله بلا فقرب عمري فقبلا قاب قلا يا مرسال مصطمني حزن كذا من كان لي ولصفى زمني جاوت في لسان العرب بلا نهاية وتاب القرن نسعى للإسلام حفظ قربتي لدى الجزائر منير تربتي نسعى النور لزاد والكتاب أزمان خدمتي لنا للكتاب صمد المصفح عن يميني حمدا وبدفعي هداني الله وسعة الرحيم إلى سواهم لعبس المحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله سرد بجهز كل سر وسنت يعود كي يلا بجهز يلا بجهز سرد بجهز كل سر وسنت يعود ku yàlla déggal ngay ne te yàlla déggal na la déggal nga malaaka yàlla ak neenam ba nag ku rëy nga fa béyat yàlla te yëpp xam na la déggal nga malaaka yàlla ak neenam ba nag ku rëy nga fa béyat yàlla te yëpp xam na la déggal nga sama bay mu saba teg ca mu saba taraf ma nu laa yàqal te nu ñëpp kañ na la damay sakku te téeméeri junni jaas ma la te fii ñeent benn junni ñi fas na benn la dogoon kon bu dee nag jàng nag na la wax xaram juróom na bu booloo ni nit yaa ñi la ku noon kay nag noon si nag ma far dàq ñaay mu daw bu soo woo na la ku noon kay nag noon si nag ma far dàq ñaay mu daw bu soo woo ci bay moo fi te bay yàlla gis na la ministre yaa ko man ñëwee ceebal yi nii kenn doo waaye noonu la sa yàq dus bi nag si yokku fa wuti dootu ne te daan ñu bégal Mbàkke gi yàlla bégal na la ngeen di am tey ak ëllëg seenu sëriñ tey wa fi kan gannaaw bi ci yéen a fi kan yéen a gën sëriñ seen a gën nag seen i kenn bég leen a bég lii bàkku sax mayewu ko jite ji rëy mayewu ko pexe mu rëy mayewu ko mbay lu mayat mayoon bu njëkk ku yàlla may ci sang yi sang bëgg ci sang yi may la nga gën ci dong yi nga xam ne baaxama nag yéen a gënu sëriñ bu ne yéen a gënu murit bu ne sëriñ bu nekk xam na ne yéen a gënu itam mu nag asaka daal ak i sarax la tonka daa boole di jox ab sëriñam da di kaw sëriñ bi maa kama doyeg benn sëriñ masula ku koy jox ak mbiram mbiram ñu doyoo sëriñ bi ak ñoñam ku wet lii mata arak benn sëriñ masula ku koy jox ak juróom juróom lu dul sëriñ bi ak manam ku wet lii mata alal sëriñ bi daal ma saam ku koy dox ak juróom juróom di wut gërëm di wut di gërëm di boole di dee ci bëccëg jom ko ngir defal lu kenn deful tey defal lu kenn dajul tey defal lu kenn deful ba ñëw ñu door a jóg ku jóg di daw dootoo jëfal ko moom aw ndigalam def ko borom yàq na feroon ni tàggat yàlla nu boole yaram nu goram tegal nu nu boole nu yaram nu goram tegal nu ak mooy ndigalam tey ca kaw tey ak alaw lool gis na kay ma jool bar ma daan ma tuul moo di lampu faal jàpp lool gis na kay ma jool بل مدعن بتوع مواد الحقفات أمنا لا مدعن ورما في عكا بل نخين يخان كلمة الحقفات لو نخيل يخيل أبو يبو خير موقع مقربا كلمة الحقفات أمنا لمن دم أمنا لمن يوم سنة جاية خان كلمة الحقفات مواد بابلو مواد خيل فنالي بلا كلمة الحقفات باب الأمواج خل الله سجن البلاء جن الأنفال موضع من بوس بوس الذي بوس جيج دام لخوس جن الأنفال أما فالجد أم دام والمسال سكي جامي جام جن الأنفال مصنع الليل العقل نبور يكون جت جير جير جن الأنفال سنة تركبه ولا تصور موت جلي بركن الأقبال يلا راية دعم راية الدقام ما يرينا أمكن الأقبال خذنا أجر من زاد في زمن سنر وكل كن الأقبال خذنا أجر من زاد في زمن سنر وكل كن الأقبال أم خم يقين أم نجز يقين سرنا باليقين كن الأقبال benn dëkk fa ak benn jaga waaju xàcc dara dootu jàll faal raasi ngay nga feesi nga joxeel waaju hamba jeex xàqu fa mu daal am nga seeti seex am nga mu neex yow sa ndox jeex yaa di lamb faal hind yow du tee saa su njël jotee mbaa bu bës fi eshaal yow sa kàtt kaw waaju njëkk daw ñu gën yaa ñu boole ci kenn lamb fa aan man nga yow nga man gën nga yow ñu gën yaa ñu boole ci kenn lamb fa aan fal nga buuri buur fal li buuri buur géej nga yaa ñu buur kenn lamb fa aan añ na mbëtte kaw aji mbëtte kaw raw nga gaay raw kenn lamb fa aan عيني دجال جمل أقفال بس نقوي رجال بين طول طول طيب بول بول أما يول يول جمل أقفال